te mag ñi leen di wéttali waaw mu mel ne itam mu ngi leen di ñaanal ku bokk ak yéen at yàlla ngeen bokk yiw ku leen yées ci at yal na ngeen bokk yiw ku leen mag ci at yal na ngeen bokk yiw mu mel ni itam yaakaar ak fa ñu ko teg te képp ku ñuy yaakaar nag mel na ki bind ki bind moo ca gën a yey te mooy yàlla sunu borom ñu bëgg waxtaan ak yéen tuuti rekk xam naa dëgër fit la sax ndax ñaari mbooloo ñoo fi nekk mbooloo mu ñuy tuddee yonent yi ak mbooloo mu ñuy tuddee scientifique yi ku ci ne yàlla won na la ni xamuloo dara waaw ndax wax na yonent bi ko del wax ni rabbi zidni ilman mu dellu wax feneen ni wa ma utiitu min al ilmi illa qalila bërki démb daje bu rëy am na ci ñiy liggéey ci wàllu science am ci koo xam ni liñ ko dénkoon mooy mu jàng yóoru doomu aadama ci tugal la nekk wax nañ ni bu dul ku gën a màgg ci ñoom kenn gënu ko màgg ñu ngi ba ñu ngi ci 95 ñu woo ko moog di ko laaj fu mu toll doomaadama gi mu doon jàng ñaar fukki ak ñaar mu ni leen ba tey fa ma njéel beenoo laa yem waaw paase guma ko mu ne itam yëg na ci ni yeneen luwaay yi ñuy tëral te di ko tëral moo xam ci wàllu physique la walla walla wàllu leneen la nee na yëg na ni du tax yëf yee leer am na leneen lu koy leeral lu kenn xamul mu mel ni kon nag nu seedeel yonent yi seen coono bu ko defee ñoom ñu jóge ca kaw jëm si ci suuf scientifique yi jóge ci suuf jëm ca kaw lépp pour mën a xam lu tuuti di jàngale am na nu ko scientifique yi di jàngale yàlla mi sañ lépp wax na yonent bi ni ko وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل علينا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة نانا يونس تبي تيلم سلام من وينغ ينجل تواخا غوما بان نوبي باباكو ينجلي دو سوتي خمولو لي ماي واخ لان لا نيكو لو تخ نين ياكام تي دارجا ياتونا تدرجي الاخر aadama moo mel noonu pour wax la ni ñoom fa ñu jaar bu leen yàlla dimbaliwul woon ñu xaddi waaye am na koo xam ni soo xaddee ci wàllam foo jëm foo jëm waaw waaye daal ñoom seen may mooy ca kaw lañu ju dale jëm si ci suuf mayu scientifique yi mooy ci suuf lañu dale jëm ci kaw yonent yi agsi ci suuf scientifique yi génn guñu suuf te terewul rekk jàmbaar lañu jàmbaar piir lañu tabarkal mu mel na bu dee ñii ci suuf ñu ngi jéem wax àdduna bi naka la tàmbalee itam taxagul ñu sore ci am na baat bu ñuy wax Big Bang nee ñu yëf yi dafa jékki-jékki ni tëll waaw ba mu nee tëll ya génn génn yàggul lañ ko wax te fekk na yàlla wax na ko yonent bi boobaak léegi junniyaat ak genn wàll ak lu ko ëpp am na bu ni ko asamaan ak suuf dank la woon maa ko xappati waaw yàlla ko wax yonent bi mooy asamaan ak suuf fa fatax naa wuma كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ونكو دانك لون ما خبتكو بما كو خبتي ما ووت توي توي لو دوند رك تي توي توي nga dundé waaw ñi ci suuf ñoom itam ni toy toy boobu fu mu ne daañu ko wuti xam nañuy dundale dara ndax ba ñu dalee def ba léegi ci lu dee rekk lañuy jëf te nag yàgg nañ ci yàgg boo xam ne soxla nañu dundal ni yàlla di dundale defe naa du nekk léegi nag xëy na ca kanam bu ko defee li ñu miin ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dañu wàcc ci moom benn saar saar bu ñoo wax suuratul ixlaas wala suuratu tawxid bu la ci neex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 tàmbali fu mu tàmbali ndax huwa ja huwa ko gendiku doo am tur ku gendiku huwa ja doo am tur ne soxla nga turu borom bi waaye boo gendi koo huwa ja nag doo am tur lu tax moo di bu ca bu fa tolloo moom rekk ay xam turu boppam mooy woo boppam wuyu boppam waaye keneen du ko woo ndax keneen du xam turam foofa du kenn nag moo tax boo demee ba ca malakuut caserne ya fa nekk caserne bu nekk def nangami téeméeri junni milliard ci ay malayka malaayika yépp ku ci ne sédd nañ la tur booy wooye sa borom gannaaw ña géndiku ja te nee ñu ñoo gën a yéemi te gën a raklu ci xeetu malaaka ya nekk ñu tur buñ ko wooye ndax fa ñu gendiku kenn du ko fa wooye moom rek moo fa mën a woo boppam wuyu boppam wate ñu nga boof rek naan mooma mooma waaw foofu la ñu mën a yem mooma mooma mooma su defee bi bind googu di laata am wax nañu ni sunu borom boppam daf ko yéem laysa ka mithlihi shay boppam daf ko yéem la dañu naan jikko lay collectionné jikkoom yeeg meloom yeeg li mu mën li mu àttan yépp yéem ko te amul seede foofu la noyyee noyyi ga dem na palaasu nammeelam ànd ak baatu nammeelam waaye fa noog a jóge kenn du ko tudd te ku ni leer la alku ku ni lëndëm la alku ku ni fële la nekk alku intensité ba àgg na foo xam ni bu ñu ko wàññiwul lëf dana xew ñu bàyyi ko nangami milliard ci ay siècle moom noyyi ga mu agsi fu mu nangoo ñu jox ko fa tur te mooy degré ñaareel ba waaye bu jëkk bi moom tur wa rëcc na moom rekk moo ko xam xam naa ku ko jàngaloon sax boo ko tuddee di mel ni biftek waaye dëgëre ñaareel ba nangu na boo bokkee ci xeetu Muhammad tey wax nangu na nga tudde ko fa Allah jëkk ba tur amul lu dul ba nga xamal boppam di ko wooyee boppam di ko wuyoo boppam bu jëkk boobu nag moom la mag ñi tudde haahut waaw bu ñaareel bi mu amee nom propre bi ñuy wax Allah moom lañu tuddee laahuut pause am intensité ba wàññeeku ñu indi bu ñetteel ba mu tuddee ko jabarut ñett yi yépp amu ci bu tànk mësa dëkk yonent bi li muy foor yëpp malakut la yem ndax ca la ñu tàmbalee mbindeef ci malakut fa service yi nekk wala huut intensité wàññeeku na nangu na nom propre bu fekkee ci xeetu Muhammad nga bokk te itam arab nga wax wax ko Allah malakoot ñëw jëkk malakoot mu placé al arsh wal kursi mooy trône bi al mooy piédestal bi ñoo tiim malakut malakut ñëw ñu bind malaayika yépp ak arwaax yépp placé leen fa kenn ku ne ak na ngay bàkke yàlla parce que yàlla yi xew yépp pour ñu bàkk ko la leneen taxul pour ñu bàkk ko moo tax lu ci nit mën xam na ko mën na ko sañ na ko def na ko pexe amu ci malakuut wax nañ ni ascenseur ya ca couloir ya am na ci yoo xam ne bu ñu dee yóbbu dossier ci service ak service yenn yi dana mat juróom fukki junni at ci ci boo bëggee tudd lim rekk boo bëggee tudd lim juróom fukki junni at pour won la ni moo gën yaatu ndakaaru mu mel ni itam bu ñuy wax dañu naan asamaan yi juróom ñaar waaye ñoom province lañu rekk ci mëlëkuut amul werante ay malayikaan ko dëkke yi ñu mën tuddee ay gouverneur ay malayikaan ko dëkke yi ñu mën tuddee ay préfet ay arwah ñu ko dëkke yu dul jeex yo xamni kenn ku ci nekk la jibril waxoon yonent bi rek ni fi service rek a fi am ak discipline leneen amu fi la yaasuuna allah ma amarahum wa yafaaluuna ma yumaruun bu ko defé asaman yi nak seen diggante ak malakut euh, dox ba dina xaw yàgg tuuti waaye rekk ci malakut lañu bokk ndax province lañu ci walla banlieue bokk asamaan bu jëkk bi bi féeteeg ñun sorewul wante ba léegi defe naa ni tubaab yi àggaguñ ca asamaan bi féeteeg mëlëkut nag dafa niru mëlëkut ba boo ko séento boo gaawantoo ni leer la gaawantoo rekk leer la waaye ci kaw nag nga séentu ko ndax jege ko mënul nekk waaw jege ko mënul nekk waaye moo gën niru leer nag yi ci des ndax moo gën jege loo jege rekk niru ko wax nañu haahuut wax nañu laahuut wax nañu jabaruut wax nañu malakuut ñoom ñeent léegi wax nañu prophète ba ca gën jege melo leer la amé gis nga wolof xamna lu nek waya xamul li mo xam lu metti la wolof xam na lu nekk wante xamul li mu xam ndax dafay fekk xaqiqa xaqiqa mooy li ngeen di wax réalité essentielle mooy valeur ñoom nag dañuy bëgg a jël aada firee ko xaqiqa te kon àdduna bu tukki lay doon ndax kenn du fekk li gëna a doyadi di ko firee la gëna a doy ndax du sotti moo tax yii nu fi waxtaane yépp ak yi ci téere yi bind yépp wolof wax na ko ci ñaari baat te xamu ko ba tey mooy lu dul yàlla neen lu dul yàlla neen la bu ko wolof waxee rekk dafa mer looloo tax du dem wolof waxee rek dafa mer ah bàyyi ko rek lu dul yàlla nen la waaye fekk na lu dul yàlla neen la kenn du ko wax ci biir mer ñu ngi koy wax gannaaw xalaat la nak wolof amna fum ko jële ndax amna ko ko jëkk wax ci way kat woykati arab yu jëkk yi amna ci ko xamni dik na jëkk l'islam wax ni ala kullu shay'in ma khala allah batilu ala kullu shay'in ma khala allah batilu wa kullu naimin la maxalata zailu yonent bi nee na ba mu dalee dégg woy way bu gën a dëggu wax boobu nee na gisu ko borom way bi dafa ni lépp lu mu manti doon te du yàlla nee na neen la nee na bépp xéewal bu ñëw ci pénc walla buntu kër dafa sipp di noppalu dana safaat dem yoonam waaw hmm. pexe ci su ko defee wax naa ni suñu tuddee province walla ñu tudd banlieue asamaanu juróom ñaareel bi moo gën a malakut ndax booba intensité noyyi gaa ngi wàññeeku wante taxul mu wàññeeku lool wata du niru lu jëm ci matière du ko mën niru ndax soreegul yee ca des ñoo koy niru juróom benneel bi bu juróomeel bi bu ñeenteel bi bu ñetteel bi bu ñaareel bi ak asamaan bu jëkk bi ñoom dañu xaw sàcc niru matière boo leen sore fekk na yëf yaa ngi sedd si waaw seet nañu bu juróom benneel bi ci boo ko soree nangami milliard ci kilomètre xool ko dafay mel na yaaquutatun safra lay doon melo xeer bu toll ci couleur bu bu jaune ko sore na nga ko nga xam ni ñu ngi sàcc si nekk si bu ko defee nga ñëw ci bu juróomeel bi boo ko soree na ko wara sore dafay mel ni daf lay jox melo li ñuy tuddee addahabul ahmar mooy wurus wu xonq wurus lu tax ñu ne wu xonq te ñun wurus xonq lañ ca xam waaye am na wurus yu weex lay xaw niru gis nga yooyu yëpp dinañ ko dajalewaat mu ñëw ci suñu àdduna bi ñu di ko jëfandikoo di ko jariñoo ndax ay dakkit la bu ñeenteel bi boo ko soree na ko war a sore nangami milliards ci kilomètre ci waaw da defe ni melo ak durratul moom lay doon biir géej am na ay xor yuy naan ndoxu taw xam nañu ban lañ ci war a naan pour mu soppeeku di per ci seen biir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 bi muy niru boppam mooy bi mu ñëwagul ci ñun dinañ ci dellusi ndax léegi mel na ni japonais yaa ngi ci liggéey ñoom di ko def wàllu culture per boo xam ne dañ koy bay waaw te fekk ba ca rafet nag mooy ba ca xor ba projet bu ñetteel bi boo ko soree la ko war a sore xool ko daf lay jox melo yaaquutatan xamra fer bi ngeen tuddee rubis waaw boobu melo la lay jox mooy bu ñetteel ba bëgguñu ku ko jéggi nag moo tax ñi yàlla reyagul ci yonent yi sañu ñu ko jéggi ndax buñ ko jégee te dañu soxlañu dellusi dellu si te Isa ibnu Maryam ca la bokk ñi war a dellu ñépp ci asamaanu ñaareel bi lañu nekk ko jéggi dem ci bu ñetteel bi te bu ñetteel bi dafa jegeñ barsax waxuma barsax barsax mais barsax bi recevoir arwaax yi bu ñu wuyoo seen borom te yóbbooguñu leen HLM yañ leen wutal ñu dëkkandi fa ñu ngi ko aménagé diggante bu ñetteel bi ak bu ñetteel barzax nag euh, nit sax dana tudd sax nit bu demee ci jamonoom ba yàlla du nangu kenn jéggi ko di ñëw ci moom mën nañ ko tuddee barzax waaw alqutbul maktub wal barzaxul maktub fi ñaari géej yi daje te duñu duggante baynahuma barzaxul la wante barzax biy recevoir arwaax yi ndax arwaax yi yi ci demagum mat nañu fukki yoon ci lifi fi des wala mu ëpp ko juróom ñett fukki milliards ak lu teg boo demee installé nañ leen ca HLM yooyu li ndeyam dana dellu si waaw te it bare na ñu seede ni ki ñuy tuddee axnuux wala xanuux الشيخ الحاج مالك خنوخ لوخ عرب جيني إدريس ومتهم وقنا ني آه، دينينكو داكين تلسخ نيني هرمس بالضم نيني هرمس بالكسر مم إدريس yàlla def ko mayoon ci métier lu mu mayul kenn ba mu àgg ci fu mu ko maye la mu ca liggéey te mu yéeme yépp mu e-, mu exposé ko ci asamaanu ñaareel waaye der la gënoon mane nag wóode la woon ko dàkkentale hurmus ñi ni hirmis ñi ni du moom sët ba la ndax sët baa ko donn ci xereñ muy hurmus walla muy hirmis yépp mooy firi utaarid firi utaarid dañ ko dañ ko dàkkentale xam nga constellation zodiacale yi benn bu ci nekk la nga féetewoo te boo déggee nit ñu di ko dàkkentale ci utaarid dafa fekk métier mu ne mën na ko idris mooy patron képp kuy ëw te bëgg yàlla barkeel ko war nga bàyyi sa xel ci ni métier mi nga am ca baay bu ñoo wax Idris wante bu ko aada bu ko daanu ndax kast dafay dikk te comme mbooleem yi xaram ci àdduna kast philosophie la boo xam ni teguwul ci xaqiqa teguwul sax ci aada ju rafet waaw mas naa ko fi wax atam ñu bind ma leetar naan suñu valeur traditionnelle ana valeur traditionnelle te xaqiqa nekk abi talib daan na ci milité ngir bañ rekk ñu wéel ko ndax ki la raw a la gën ki la gën a ñeme liggéeye la gën waaw waaw yow na ngi indi kaste rek teg nii maa gën kii maa gën kële moo taxit wolof tontu la ni la kii géwél bu gën géer la

فرعون بدجك موسى موكو إني إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا ماكو جك فيري كاس نتري مكو لجي سبا يجي بندي يب خم نجن كاسر متى علي بن أبي طالب الناس من جهة الأنساب أكفأ الناس من جهة الأنساب أكفأ أبوهم آدم والأم حواء آه؟ سيدنا علي ننا بن بايرك في نكك بن ndey باي bu ñuy wax adam ak ndey na wax ma nag yow koy dugal ci diggante bi ah ma tax aada baaxul waaye at bi ma ko jëkkee wax ay intellectuel ay universitaire bind nañ ma suñu nangam nangam ay parti politique sax traditionnel xaqiqa ku ëpp doole du benn moo Cheikh El Hadj Malick taala anhu daan wax ni lima ma ci sama dund moo ñàkk Sëriñ Aliou ni ko li nga nekk du métier mu ni ko déedéet diine la diine du métier waaw ni ko diine du métier kenn du ko dundee diine du métier ku ko def métier di ko dunde doo góor dem ca juma ja ilimaan ja tarde léegi ilimaan ja ouvrier la amul oto bu mu dugg welo la am circulation ba metti ba ba muy agsi danga koy yërëm waaye ba mu ñëwee moo jiite juma ja waaw loolu mooy xaqiqa waaw moom daal looy def rekk jiitale tax Maodo wax ni bokk na ci li ma rëccu daal ñàkk jàng métier Sëriñ Aline ni ko waaw li nga nekk du métier mu ni ko mukk diine la te diine du métier mu ni ko boo doon jàng métier ban ngay jàng mu ni tekk bu mujj ni ko ah li docteur yi def de neex na ma faj doomu aadama yang ne ko yaa ngi faj ruux yi de mu ne ko li ma la wax xam naa ko mu ne ko gis nga yont yàlla Moussa ñax ñax ma yoonam dem ba fa mu daan sukk mu sukk fa ni yàlla dama feebar faj ma yàlla ni ko am na ñax koo xam ni boo ko baxalee naan ko wér mu ni ko ban ñax la mu tudd ko ñax ga doon wax ak moom dem jël ñax ga baxal ko naan ko feebar ba yokk mu dellu fa mu sukkoon sukkaat fa ni yàlla feebar bi yokk na mu ni ko ndax docteur am na ci dëkk bi mu ni ko waaw mu ni ko demal seeti ko mu dem seeti docteur ba docteur ba seet yaram wi digal ko ñax ga dem jël ñax ga baxal ko naan ko wir yàlla ni ko gis nga bi nga feebaragul sama kattan laa doon wone ci mën a uuf njaboot bi nga feebaragul bi nga feebaree sama kàttan laa doon wone ci mëna nott njaboot ni ko bi nga demee ci docteur bi mu wax la nga naan wér sama xereñ laa doon wone ci samp pénc yàlla wér lu docteur yi defati ci kaw suuf loolu moo tax daan di dénk waa Sénégal nit nañu wattu tam li ma ragal mooy ñu dem a dem a dem ba diine du mën a daan aada ci réew mi bu bi mu fiy jóge weddiwu ko loolu tax mag ñi tiit mag ñi ko ba bi mu jóge bu diine bërek ci Sénégal xamal ni lu mat a bàyyi xel la moo tee diine ji tey moo tee politique bee tey politik bu aada njattul ak diine ju aada njattul yombul ci Sénégal de yombul